salaamaaleykum dalee nag jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie ñëwaat nañu ak yéen ci beneen formation formation bi tey ñu ngi ko tuddee initiation à piton wala Python master class mu nekk formation boo xamante ni moo leen di may ngeen mën a dugg si programmation mën a tamit xóotal bu baax ci lan mooy programmation ak programmation lan lañ mën a may ñu def ko léegi lan moo tax formation bi ak lan moo tax piton Python dafa nekk langage de programmation boo xamante ni dafa neex a jàng neex a lire neex tamit bind. beneen bis toog Python dafa am communauté boo xamante ni bu yaatoo yaatu la te bokk na ci aspect yi tax wala li tax ñu war a jàng benn langage de programmation mu am benn communauté. communauté moo lay dimbali tey bu doon da ngay def benn programme au lieu nga nekk di commencer A à Z de A à Z mais da ngay dem ci. si communauté bi nga xool ba xam am na ku développé lu mel noonu wala am na ku créé lu mel noonu nga jël ko beneen bi Python ci système yëpp lay dox moo xam Windows wala Linux wala Mac OS beneen bi topp Python dañuy may ñu mën a créer application moo xam application web comme lu ci mel na sit web comme site web yi ngeen di gis wala sit e-commerce site boo xamante ni li ko tax a jóg mooy jënd ak jaay lu si mel ne situ Jumia wala euh, Expat Dakar benn bis piton Python dañuy may ñu mën a defar application mobile bu ñu nee application mobile xel yi ci li muy njëkk dem mooy WhatsApp wala Facebook wala PayPal wala wala Instagram ok benn bis topp Python dañuy may ñu mën a créer application desktop moo xamante ni euh, comme lu ci mel ne Office. comme Word wala PowerPoint wala Excel wala tamit yeneen application yu mel noonu comme jeu vidéo yi ngeen utiliser ci seen ordinateur beneen bi tamit Python dafa ñëwaat ci ci lu am solo ñu koy utiliser ci domaine yu bëri moo xam ci l'intelli intelligence artificielle la ak ci yeneen domaines yu bëree bëri yooyu yëpp dina si ñëwaat gën ci xóotal lan mooy suñu objectif ci programme ci euh, formation bi lan moo tax ñu commencé formation bi lan moo tax ñu daal koy jël. bu si njëkk formation bi objectif yi ñu ci am mooy képp koo xamante ni suivre na ko ba mu ci de A Z moom dina mën a utiliser Python dina xam base langage bi piton mooy lan ak piton na naka lañ koy utiliser naka la ñuy bindee code piton beneen bi topp dina mën a maîtriser ni ñuy développer ay application parce que am na façon yu bëri yu ñuy développer application léegi moom tamit dina xam naka lay développer application ak bu bëggee développer application web ci Python nan laay def boo bëggee développer application mobile nan laay def boo bëggee tamit développer application desktop nan laay def beneen bi mu nekk loo xamante ne lu am solo la dina xam naka lay utiliser module yi nga xamante am Python module yi comme genre ay package maanaam ay programme la yu simple yoo xamante ni yeneen développeur ñoo ko ñoo ko bind ñoo ko créer léegi yow développeur nga naka ngay def ba utiliser ñoom module yooyu ñu daal di créer bu mujj bi formation bi dina la may boo koy jeexal nga am sa benn application mën nga si créer sa benn application bu simple ndax bëgg nañ def sa section bu nekk rek ñu créer benn application boo defee boo jeexalee formation bi da ngay boole comprendre théorie bi ak tamit pratique bi euh, merci léegi cliquer leen si abonné ngeen partager vidéo bi ba beneen yoon ci beneen vidéo merci